Voilà, maintenant là c'est euh, c'est en public. Donc euh, Là, c'est en public maintenant. Mmh. Mmh. da Non, j'ai mis en public, c'est bon maintenant. C'est bon, oui. Oui, c'est en, en public maintenant. Là, je pense que j'ai mis en public. Et eh oui, j'ai pris, je suis patriote jusqu'au bout. Voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, Euh, Sonko a quitté son domicile pour se rendre euh, devant le juge. Donc euh, la route a été bloquée avec ces manifestants. Ils, sont, ils ont été euh, dispersés. Euh, là, les journalistes aussi ont été dispersés. Ces gardes, euh, ils nekkoon tout autour oto bi les gardes rapprochés on les a arrêtés ñu ngi fii ñoom ñëpp et voilà ñu tëj ci rond point euh, Elton Mermoz lañ nekk ni ñu tëj voie yëpp pour euh, procéder à son arrestation je pense que là ils sont en train d'attendre l'ordonnance pour pouvoir l'arrêter Sonko il est sorti une seule fois il est habillé en blanc mbubb bu weex la sol donc voilà maintenant je l'ai partagé en direct option, de, euh, je veux dire, c'est ouvert au public. Donc maintenant, waxal olof waaw léegi man damay noppi ma bàyyi ñëpp gisandoo. son de charge moom a dese. Ok, dans, dans 5 minutes, je, je, vais me déplacer pour, euh, pour votre prise, en fait. mooy bu premier kii bureau sama charge boobu mu ngi sama saak. fan laa koy branché xoolal fenêtre bi nekk fee dama koy branché ci bureau bi taxaw ci fenêtre bi mooy premier bureau bu xadi bi Non, ce ne sera pas possible. Euh, espérons que ça va se faire dans les minutes qui suivent. pourtant chargeur wu xale bi gudd na de wala. chargeur wu xale bi gudd. chargeur man de am naa bu gudd mais mi ngi sama oto si sous-sol bi. ah waaw sinon ma jël sa bopp. c'est ça au fait. ah 12000. 12000 jours. Normalement, ça va pas tarder au fait. La voiture de Sonko. Il y a Sonko qui est en train de sortir. Oui, ça peut être ses avocats. yow kay charge gudd na bosu Xadi. s'il te plaît Xadi. dama al chargé ma taxaw si fenêtre bi parce que maa ngi e déchargé. non il est là dehors en train de oui là moom moo nekk di wax ak. oui moom moo sol solo en blanc. c'est le ministre de l'intérieur ça je l'ai vu en commentaire donc je sais pas. normalement foofu lañ ko war a dugal fii jatu bu soo bàyyi ba <laughs> jatu dana su laay bi tëggee dinaa dee wallaay lii instant yi est-ce que defuma ci sama bakkan teewul ma nii ma dem lijjanti charge ah teewul continuer teewul gisoo mi ngi nii. sa bës la mi ngi nii ah. sa bës la. wala kii nee na ma xadi xanaa affaire nga bokk xadi téye lii bu baax je suis pas affairiste quand wuy chargeur bi. kii nee na ñu ngi lijjanti chargeur de. nee <laughs> na soudeur bi sonal la ñëw sa bopp. <laughs> oh kii nee na bul yëngal téléphone sa biscuit daal. bon, j'ai pu avoir un chargeur.